man seen mbok mohammedou nel Mansour bu Serigne Cheikh Ahmed tijan ci maa leen di nuyu di len ndokel bu bax itam ci wer wu tedd bi muy wer wi nga xamni ci la ki tax yàlla bind lu mu bind gane aduna mu yont yàlla mohammed sallallahu alayhi wa sallam yont yàlla mohammed yàlla amal na ko ay siècle doog bind sunu maam aadam waaye comme boobu jamono calendrier amul montar amul ñi ci bind dañu wax rekk ni ab lim lañu joxe waaye joxewuñu nag nombre digante bobu ak fi yàlla di binde sunu mam adam événement yu bare bare bare xewna fi te dara waralu ko lu muy waajal dikkuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu melni humanité bi munu ñu ko fay mom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax service yi mu len rendre barena waye biñ ci cité fi rek mooy yàlla jox ko cër bu day ni mu am accès ci moom waaye mu xam ni dem tëdd ci suufu yàlla mu di ko ganale guddeeg bëccëg bàyyi fi njaboot gi fii ci kaw suuf ñuy sànku loolu am na lu ko ko gënal te mooy am ngërëmal yàlla yàlla am ngërëm àdduna bi yépp macha allah waaye nag li muy tedd tedd moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu dégg ci safaan benn mbindeefu yàlla mosu koo dégg moo tax am na ku ci bind sax wax ni l'homme le plus insulté du monde c'est Seyyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pourtant malgré service yooyu mu rendre humanité bi yëpp yàlla ben njukkal rek le demander humanité bi yépp ñu dello ko ci mom te moy di julli ci mom waaw waaw inna allah wa malaikatahu yusalluna ala annabii ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima te salaatu ala annabi waaye am na ñoo xam ni rëy nañu di génn ci seen làmmiñ baat boo xam ni dañ koy jëmale ci jëmm ju tedd comme yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ren nag dafa tombewaat ak ay jafe-jafe démb dama ci dégg benn déclaration ñu wax ni dañ koy ajaat ren ndax jàngoro ji comme jàngoro ji kenn xamul kañ lay jeex ndax yàlla moo ko indi te jikko yu suufe moo tax yàlla indi mbas mi li gën mooy ñu seet ba xam jàngoro ji jar na ñu tëj lu day ne màggal guddi yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te am na ñu wax ni ci tariqa bi lañu aju mais ñoom dañoo wax ni dañuy gàmm kon nag suñu demee ba ni Tiwaawan moom duñu ko def kooku tëralin la bu nga xam ni am na ñu ci ànd mais am na ñu ci àndul léegi nag li nga xam ne nii moom laa ciy digal ñi nga xam ne nii ñoom laa bokkal ëtt moo di ni yonent bi bis buna nit ñi magal ko ndax falatul fatih bi buna ñun ñu jàng ko te lolu euh doyna fek ci magal yonenti bi waaw Seyid Cheikh Ahmed Tidiane si radiallahu anhu mo ci def lu kenn deful ndax falla alayhi allah kull daqiqatin wa ala al ula sallaw alayhi wa qaamu loolu la wax nee minute bu nekk yal na yàlla julli ci yontu yàlla Muhammad minute bu nekk la wax waaw kon nag xam nga ni yonent bi bis bu nekk ñu ngi koy màggal bii tolloog weer wi nag sunu maam Cheikh Al Hadj moo ko fi indi woon ay événement yu ëpp mbax mi fuuf daan na fi ñëw te terewul dañ ko daan taxaw rek ñoom dañ daan sukkandiku ci seen cër ak ci seen pas-pas ci yàlla di ko doxal léegi nag li nga xam ni moo am ba am moy man damay ñaan rek ñu xamni ke Serigne Babacar si radiyallahu taala anhu ba mu fi jógee ci loxo njabotam la nekkon Seyid Cheikh Ahmed Tidiane si ak Seyid abdul Aziz Al Amin radiyallahu taala anhuma bim fi jógee itam ñun ñi ñu fi bàyyi di ay magu talibe itam li ñu fas yene moy emboîter le pas fexe ba kër gi nek sanctuaire bo xamni ne ni képp ko xamni ni jaaxle na la bo fi fanane sa jaaxle jeex jeex fexe ba daara ji comme moo mooy faar bi nga xamni ni képp ku nitu ci walu xam-xam ci njabot gi nga ko foy dem nga do fa dem rayonnement boobu bañ a dakk bu ñetteel bi mooy jumaa yi Serigne Babacar Sy comme moo symboliser ñun suñu lit lutte ñu fas yéene rol boobu di fi nekk ilaa yawmil xiyaamati ci ngoon léegi nag dafa am lu am mooy gis nga kër sëñ Babacar ci boppam ci sama loxo la nekk tey waaw te incha allahu taala fas naa yéene lépp loo xam ni ci taxawaay bu ko mag ñi fekkewoon woon duñu ko nangu man duma ko nangu lépp loo xam ne nii mag ñi fi jóge bu ñu ko fekke woon daañu ca jàpp ba mu jëm kaw danaa ci jàpp nag ba mu jëm kaw aw yiwu nag kenn du ko yàkkamti waaw danga koy tëral ba mu mat li mu doon boo koy génnee nga dog koo génn Je yi dafa vous ba Par une communication subjective moo fi am Ken waxalatul yalla, ken waxalatul bi sallallahu alayhi wa sallam kune sa intérêt bop rek ngay te euh, comme loolu du wàññi dîner ji dara du tariqa bi dara du bi dara ña koy def lu cay bàyyikoo ci safaan ci seen bopp lay yam kon ñi nga xam ni nii ñun la fi mag ñi bàyyi nañu fexe ba taxaw ci diine bi taxawaay bu mat sëkk taxaw ci tariqa bi taxawaay bu mat sëkk taxaw ci xaqiqa bi taxawaay bu mat sëkk taxaw ci njaboot gi ba duñu ñee kenn te incha allahu taala yi koy def yépp mu ngi ci suñu loxo ñu ngi ñaan yàlla nag lépp loo xam ni nii mag ñi jaraloon na leen ba nu jaay seen bakkan ñun yàlla jox nu kàttan ak pas-pas ak leer gu nu jaaye sunu bakkan pour loolu bé àdduna nag ñàkk fayda weesuwul ngay topp ci ginnaaw koo xam ni gënu laa ragal yàlla dégg ëpp la pas-pas gënu la jikko jàppewu la nawle loo am mu bëgg nga jox ko ko toog te bu dëgg jotee doo sañ taxaw ni ko lii bu ko def loolu esclavage pur et dur la waaw am na ñoo xam ni nag seen pas-pas mayu leen ñu nangu ko macha allah kon nag li am ba am mooy dama jotanteeg mbokk ma la ca Tiwaawan mu wax ma ni ma dañu bëgg def burd bi muy benn ma wan ko ni ko loolu man dama ciy opposé farouchement te su ma yàlla dogaloon tey ma nekk Sénégal du am du am mais léegi comme déclaré nañ ko ba wax nañ ko ba nee nañu tëral nañ ko man dama ciy opposé ngir ñaar bu jëkk bi mooy mag ñi bi ñu dee tund ñaari burdu moo fi daan am tey tamit boo ko seetee ba ci biir li ngay xam mooy ni jumaay sëriñ Babacar moom lañu ñu bëggul mu jouer rôle bi mu war a te loolu ku ko mën ci àdduna bi amul ku ko mën ci àdduna bi amul kon nag ñu ngi ñaan yàlla di ñaan njaboot gi ñu may nu rekk jumaa ji ci boppam ñun ñu gérer ko suñu bopp parce que sunu wayjur yi ñoo ko dayoo woon muy Serigne Cheikh ak Serigne Abdoul Aziz radiallahu taala anhuma waaw dépendrewul ci baneen baneen autorité budul autorité njaboot yi ñu fi bàyyi ñoom ña waaw jumaay cheikhul xalifa radiallahu anhu fële mu tëdd dépendrewul ci benn autorité dul njaboot yi nga xam ne nii ñi ko fexe woon ba mu am ñoom ci ñoom la jumaa ji dépendre seen autorité loolu dama koy déclarer o haut et te bu ma ñëwee danaa ko matérialiser incha allahu ci kàttanu yàlla kon nag li nga xam ni moo am ba am burdu bi bu ñu ko defee ñaari itam benn itam man d'accorduma ci li nga xam ni moom laa ànd daal mooy ñun ci zaawiya sëñ Babacar nañu def suñu burdu ñeneen dem faneen fu leen neex def seen burdu bopp parce que itam aw yiw mu tasaaroo moo gën ñu di ko boole ci benn barab waaw fa tabaarakallaahu ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla dolli nu liimaan euh, yàlla boole ñu ci ñi nga xam ni euh, ëllëg ak sibir bu ñu taxawee dinañu mën a làqu ci seen gannaaw kilifa te yaakaar nañ ko bu baax a baax incha allahu taala yal na yàlla may nu ñu fekkee gàmm yu bare bare bare bari te yàlla itam di ko gën di rafetal te yàlla bàyyi nu ci suñu ginnaaw kilifa yi nga xam ni tey jii li leen yàlla defal ñun ñi leen yaakaar ñëpp mën nañu koo dammoo parce que amul benn nit kuy woote ni tur yàllaa ngi ci yow wala ngay woote ni wilaayaa ngi ci woote mu ngi mu ngi ci yow bu leen mën a duut baaraam ci benn anam du ci kaadaru xamxam du ci kaadaru baatin du ci kaadaru jikko du ci cadre yamale seen bopp ak njaboot yi du ci kaadaru taxawe njabootu diine jeeg tariqa bi du ci cadre dundal xaqiqa bi waaw am na nag ñuy wax sax naan kër gi daayire yi ñoo ko yor mais kër gi xaqiqa moo ko kër gi daayire yi yoru ko parce que daayire yi bërki démb rek la woon kër gi xaqiqa bi mooy li nga xam ne ni moo ko yor ku mu yitteel daa ko xam ku mu yitteelul nag kooku sa affaire bopp la ñu ngi ñaan yàlla yàlla na nu yàlla tëb ci leeru mag ñi yàlla na nu yàlla defal euh, mujj gu rafet yàlla na nu yàlla defal tawfiq defal nu sutura laneen lu mu mën a doon lu dul yii ma fi tudd léegi intéressé wul te mooy kër gi nekk gi mu nekk sanctuaire euh, daara ji nekk bi mu nekk faar jumaa ji nekk bi mu symboliser sunu lutte ñun ci suñu wàll bopp te loolu yëpp ci sama loxo la ko yàlla teg te bu ma ñëwee dinaa ko matérialiser ci kàttanu yàlla maa ngi leen di ñaanal gàmmu jàmm di leen ñaanal yàlla tëbbnu ci leeru yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yàlla may nu ñu jariñoo barke mag ñi فتبارك الله جزاكم الله